mbokk yi nuyu nañ leen seen toppkaa dikkati na comme ni ñu toppee kaa yi su nekk fii ci Dakar Live TV waaye indi ko ci penc mi rek ñu waxtaanee ko leeral ba mu leer su ko defee ñu xam fu dëgg bi féetee ah, boobu tey nag wala démb ba tey ñu ngi topp bi nga xam ne moo daal ci kaw ndodd kilifa bu Y'en a marre bokk ci group kër gi nekk activiste nekk rappeur ñu ràññee ko bu baax a baax fii ci Sénégal ah, ginnaaw ay tuuma yi nga xam ne jot nañ ko teg ci kaw ndoddam ne da doon luubal wala da doon def li nga xam ne mooy njuuj njaaj ci wàllum visa ak passeport coow li bëri lool kenn ku nekk di ko jàngatee nu la neexee ci penc mi ba gis nañ caméra bi nga xam ne moo jot a jib foofu noonu waa jëm noonu waxal mu jëm ko caméra jëm ko siiwal ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi am ñu bëree bëri ñu nga xam ne dañoo relaté euh, problème boobu nga xam ne jot na fee am waaye gis nañ kilifa euh, démb génn na di indi ay leeral ci benn ojo bu def di wax ne mbir mi affaire de privé la ate kim noonu waxtaanal yàgg na ñoom ñaar démb la tey soog a ñëw à de vingt ans ñu ngi ànd maanaam ba ñuy nekk xale tey ñu ngi ànd waa ji danoon jóge fii ci ndakaaru dem Kaolack te kilifa du ko yëg mu dem seeti waajuru kilifa bu jigéen dem yóbbul ko lépp loo xam ne ci baax baax la ndax aduna moo tëree noonu ay nit yàgg nañ di ànd kilifa nee na moom ñoom ñaar lu baax rek lañ jot a seq ci ay jamono ba tey tamit lu baax lañ mës a seq waajooju nag la doon waxtaanal gis nañ nag coow li bëri na lool ci vidéo boobu noonu ndax am na benn instant gis nañ kilifa bi ko waa waxee na ko sama doom dafa feebar sa waaye alaaji te il faut que nga def benn euh, affaire pour que affaire bi gaaw gis nañ kilifa di oo ñenn ci ay kilifa pour xool mbir mi nu mu gaawee waaye ca beneen wàllaa ba waa ji tamit gis ngeen ñenn ñi nuñ interprété wax ci wala waa ji nu mu defee li nga xam ne mooy ñaawteef boobu noonu euh, jël ab caméra caméra kilifa siiwal ko ne kilifa day dóor wala day njuuj njaaj waaye li ci am am mooy tey ci alxemes bi dañ cey gisaat beneen information bu bees mais ki nga xam ne mooy jiñ kilifa mbir moobu noonu wala moom moo caméra kilifa siiwal ko partagé ko ci réseaux sociaux yi dafa am ñenn ci sénégalais yi nga xam ne ñoom tamit dañoo nekk ca beneen wàllaa ba génnee beneen information ngi xam ne ne waajooju def mbir moomu noonu ngand maamu dóorkat la boo xam ne yàgg naa def lu bon wala yàgg naa def ay mbir ba pare aussi kenn du ko gis koo xam ne la neexut a jàpp waaye nag jot nañ ko jàpp foofee ci li nga xam ne moo nekk almadi ginnaaw ba jotee di def ay juuj njaaj wala di doon jéem a cambriolé ay kër euh, doonul kenn ku dul jooju noonu nga xam ne moo doon lëmbee fi nga xam ne mooy almadi moom moomee moo caméra ki nga xam ne mooy kilifa bu yaanaamaar bokk ci group groupe kër gi euh, ginnaaw ñu koy tudd ci ak coowal li nga xam ne mooy visa ak passeport maanaam ay njuuj njaaj mu nekk nag loo xam ne fu mu ne nii kenn ku nekk yaa ngi koy jàngatee nu la neexee ci pénc bi ñu naan ex du dil bu ñu monté pour daaneel ki nga xam ne mooy kilifa comme que dafa nekk ci li nga xam ne mooy langue politique bi mu doon activiste tout le temps di génn di kaas ca beneen wàllaa ba ñenn ci sénégalais ñu ngi koy interprété neneen ne ñoom est ce nekkul tamit sambay bàcc rek kenn ku nekk rek sa bopp nga fi nekkal wala sa poos waaye li ci am ba am mooy jàpp leen mbir mi fu mu ne nii kaabi bi critique na lool comme topp kaa la ñu wax dañ koy indi ci penc mi ñu waxtaanee ko waaye xam fu dëgg bi féetee bañ a far fenn indil ko internet yi ndax coow li bëri na lool ba tax na sax kilifa joxe na rendez-vous tey ci page Facebook am ak Instagram am ci 18h ne dina def point de presse indi leeral ci mbir mi nga xam ne moom lañ koy tuumaal ndax nee na mbir mi. mbiru privé la woon mbiru privé boobu nag xanaa amaana dina génn indi ci ay leeral waaye lu ci am ba am mooy boo xoolee mbir mi wala am ñenn ñi nuñ ko jàngatee euh, compliqué na pour wax ci waaye lu ci am ba am daal mooy dañuy indi tegal leen ci penc mi. a ca beneen wàllaa ba nit ñi nag ñu ngi naan affaire oto la ñu séqoon maanaam ak dilu oto la woon waa ji am lu mu joxe woon am lu dees ñu koy business seen biir si lañ dem ba ci biir waa ji na ko sama doom daa feebar te il faut que ñu utal ko yoon bu mu tukkee gaaw daar daar. ak ki nga xam ne mooy kilifa nag di ci doon ut ab mbaax far yàlla mbaax boobu dalu ci kawam du samay wax nag waxu ñenn ci internet yi la wala ñenn ñu nga xam ne ñoo ko dugal ci seeni page Facebook di xam ne histoire bi nii la demee lu ci am ba am mooy jàppale ne waa ji def mbir moomu noonu jël ay tuuma teg ko ci ndodd kaw kilifa ñoom ñaan ñu koy ping pangante seen diggante waajooju jot nañ ko jàpp mu ngi ci loxoy gendarmerie ginnaaw bañ ko jàppee ci mbirum njuuj njaaj d'après les informations waaye kilifa moom tey ci 18 bi dina gindi indi ci ay leeral gindi ñi nga xam ne ñooy sénégalais ndax nag mbir mi fu mu ne nii kenn xamatul nan la ak naka la kenn xamatul mbir mi euh, fan la ñuy mujjee ak suñu Sénégal bi saa ñu xëyee gis ay coow. waaye lu ci am ba am comme nu ma ko waxee samay njëlbeenu wax lépp dina leer comme topp kaa la ñuy wax dañuy topp kaa bi indi leen ko su ko defee kenn ku nekk indi ci sa xalaat waaye jàpp leen ne daal waa ji nga xam ne moo jotoon na caméra kilifa partagé ko ci réseaux sociaux yi am ci site internet yu ko génne woon yu bëree bëree bëree bëri moom teg nañ ko loxo foofee ci almadi ginnaaw ab sàcc wala ab ñaawteef yu bon yu mu noonu def léegi nag waa jooju noonu tamit ñu ngi xam ne ne mbiru oto la séqoon ak kilifa léegi nag mu ëbbatiku pour daaneel kilifa d'après les informations waaye li ci am am daal moo ne ay kilifa na génn indi leeral su ko defee nit ñi tamit kenn ku nekk jàngat ko ndax fii Sénégal kenn ku nekk am nga droit wax sa xalaat topp kaa la ñu wax mbokk yi ñu ngi la ñuy sant di leen gërëm di leen toppal kaa bi nag duñ ci bàyyi lenn lu ci indi rek ñu indi leen ko su ko defee yéen aussi tamit ngeen am ci lu leen leer naññi jërë ngeen jëf def. Ah, Non, c'est pas vrai. Silence. kan mooy jël yi di ko def sa bopp. non quand même waaye c'est quand boo je tenais juste à faire benn audio boo xamante ni pour rassurer leen déjà et pour wax leen ni la cette affaire yéen a ma ko gën a comprendre mais du la lenn loo xamante ni ça a rapport avec ça a rapport avec le mouvement parce que actuellement képp kuy bëgg a daaneel mouvement bi da ngay jaar ci les leaders mais lii c'est un truc privé boo xamante ni dama ko seq avec un ami d'enfance boo xamante ni vingt ans ñu ngi ànd ak moom mais ànd bi sax du ànd yooyu c'est juste que ni c'est quelqu'un boo xamante ni il il il nous a il a il nous beaucoup aidé dans le passé surtout pendant la période des vaches maigres il nous trouvait des fois ci suñu appartement fayal ñu trois mois de loyer jëndal ñu euh, ravitaillement pour wax leen un peu li ñu seq que ni on est très proche da doon jógee dakaar dem ba Kaolack seeti sama yaay ne ko mère damaa ñëw jël si sama ñaan du fa añ te duma ko sax yëg kon kooku jegeyantoo nañ il est venu me présenter un cas que ni doomam dañ ko war a évacuer yóbbu ko euh, mu faju ji alors bu ngeen dégloo ci vidéo bi sax Euh, di ngeen xam ni lii le gars il a tout fait pour jéem ma sax dugal pour ma wax yenn wax yi on a expliqué même des anecdotes yoo xamante ni seq nañ ko alors je pense que ni ku bëgg a mbuxum visa doo jaar ci consul yéen a ngi xool ci vidéo bi maa ngi doon ut ay contact comment faire pour joindre le consul comme c'est un cas urgent ba gens bañ a jaar ci ay dépôt surtout période Covid bi dépôt amul alors du coup bref lii mooy affaire bi bu leen euh, bu bugguma keneen jox leen beneen explication mais xam naa plus tard demain incha allah je vais faire un point de presse boo xamante ni ce sera Kilifeu face à la presse et voilà sénégalais yi tamit ils ont besoin de de de de comprendre am na certes ñu comprendre am na ñu comprendre wul et vraiment je vous présente mes plates excuses ku jiitu moom c'est toujours comme ça siiw moo mel ni moo metti Eh, jaajëf one love les frères jaajëf